nguur nag boo ko waxee ñu nekk ci réew mi ay sujet lañu maanaam dañu leen moom amuñu kàddu buur moo am kàddu ku ko daguwul doo am sa wàll loolu la Sénégal mënul nangu tey moo tax xeex li fi am dafa nekk obligation tey pour képp kuy doomu réew mi. Macky Sall na xam ne dinañu xeex ak moom. ñu dem jënd ay armes Israël. pour que Sénégal nekk démocratie. ñu dem jënd ay Ukraine. ku ñu fal nga xam ne dañ laa jiital waaye moom moo mbir mi. na def lu ko neex waaye su delluwul gannaaw dinañu xeex ak moom. mbir mi peuple bi moo ko moom. d'ailleurs depuis barke démb barkati démb wane nañ seen bopp te ëllëg mobilisation bi nar a am. parce que fitna kenn ko yor Sénégal mi ngi mooy Macky Sall. danañ ko wan ne réew mi moomu ko te dana na dellu ginnaaw mooy li gën ci réew mi gën ci moom. est-ce que pare ngeen. su ko defulee évidemment euh, réew mi moom mooy mujj toujours am dëgg si njiit yaakaar naa histoire Moussa histoire Firawna ak mussa war na doy képp ku yor nguur yaakaar ne yaay buum yaay mi ba mu ne kenn du am doom ju góor sa réew ma yàlla indi na ko doom ju góor joo xam ne àndul ak ndey àndul ak baay ba ci biir palem bi kooku màgg bi moo ko sóob si géej gi kon yaakaar naa ne peuple bi moom à la kulyaani il aura le dernier mot ndax ñun ñoo bokk dëkk fii koñ bii boo fi duggoon balaa koñ bi di responsable mi ngi fi fi lan la ñu ak lan ñuy fontooy parce que jàpp nañ ñoom ñoo yor nguur rek nañu xam ne bu ñu réew mi duñ ci mucc bu ñu réew mi du bu ni ay ndawu Pastef ndawu opposition ndawu Askan rek ñoo ciy ñàkk seen bakkan wala lañ ciy tëj kaso juum nañu gatsa gatsa rek léegi gatsa gatsa gatsa gatsa rek